cocktails une une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille Fuyep, yi yëpp ko Sénégal si anam yu sell naturel Jusito pour s'en goûter dormi collation ca bureau ba ngénte maanaam bépp jus orange ngir may actonus. ak tonus jus corossol amna, na l'ol si yaram ak ay ferñeenteem am solo gingembre bi moom dafa l'ol lool si gour ak ay vertu itam si organisme Puibina, bi nag day bar tooy baax si yaram tayit yi jus oh, oh dina yok sen katan bolé si vitamine rek la ñi bëgg so naturel nak Vito soo exsident pour fête bu monti doon te baax lool si yaxu gune ak mag lepp nak nek emballage yu civilisé tour ak jus Vito da am choix Vito jus et so existe en bouteille de 1,5 litre et 33 centilitres Vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun ci seen site internet sénégal 5 point com ak ci seen télévision 5 tv sénégal kii di Wally Balago le golden boy le centre du peuple def na li mu daan def ci lu baax il vient de prendre en charge de cette femme qui souffre d'une maladie chronique depuis longtemps en lui donnant deux sec pour qu'elle puisse suivre son traitement à l'hôpital Fann de Dakar mbokk yi mi ngi noonu Wally Balago Seck le bienfaiteur ki nga xam ne ci wàllu social rek lay dox joxe na ñaari sec benn jigéen bu wérul pour mu dem suivre li nga xam ne moom mooy son traitement fële hôpital Fan bu Dakar mbokk yi jàngeen jëf ci ànd bi Vito cocktail une explosion de saveur dans une même et seule bouteille fruits ñu Sénégal si anam yu sell te naturel jus pour sen goûter dormi collation au bureau ba am jus orange ngir may leen ak tonus jus am baax lool yaram ak ay yu am solo gingembre bi mom dafa baax si goor ak ay baax lool itam si organisme Pouy bi day wañi toy baax si yaram tayit oh, oh dina yok sen katan boole ci vitamine rek la naturel nak Vito so excellent pour fête bon montidon de te l'ol lol si ya gune ak lep lepp nexi nek si emballage civilisé te wóor jus Vito dernier am choix Vito jus et so existe en bouteille de 1,5 litre et 33 centilitres Vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06